waaw tey jii ila bi ñu fi daje woon tey moo doon danoo woon directeur d'école yi woo parents d'élèves yi woo conseillers municipaux yi pour waxtaan ak ñoom aussi aussi jébbal li nga xam ne nii mooy jumtukaay yi xale yi war a jànge jumtukaay yooyu comme ni ko waxee chaque année dañ koy def ren aussi on pas failli à la tradition peut-être ça a un peu de retard mais ce n'est pas de notre volonté parce que le 15 septembre les fournitures sur place mais y un manque de coordination bu ci amoon waaw dafa manque de coordination bu amoon diggante réeru bu am bu amoon diggante ñun ak directeurs yi parce que effectif yi lañ jot loon loolu moo tax tardement bi am mais dañoo bëggoon

kenn ku nekk jox nañ la blouse élève élément euh, yi xam ñoo nekk préscolaire muy garderie bi ak case des tout bi aussi kenn ku nekk élève bu ci nekk dañ la jox blouse pour accompagner leen fexe loolu nag incha allah rabi comme commencé nañ ko ren dañ koy gën a yaatal mu gën a continuer ba élève kaar yi mën a am blouse loolu daal mooy innovation bi ren. waaw waaw waaw waaw euh, Kayar moom jafe-jafe yi am mooy école bi moo màgget. mais beneen jafe-jafe bi ci ëpp aussi encore mooy xam nga ñun fii Kayar dafa nekk zone géej te géej gi dafa àndul ak fer te ñoom saa bu tabax état bu ñuy tabax ñu dañuy wax ba son bi dañuy tabax ay buntu fer fer yooyu day daal di gaaw a yàqu gaaw yàq googu nag moo indi école yi presque yëpp màgget nañ amatuñu bunt amatuñu volontaire loolu nag maire bi fa allah taxaw na ci bëgg waxtaan ak ñun war waxtaanal ñëpp ba fi nga xam ne mooy école 1 muy école bi gën a mag ci école yi ñu fexe ba ren jii ñu rénover defaraat ko ba mu bees bu ko defee ñëpp mu nekkaat loo xam ne dañ koy commencé ci école 1 mais jëm ci école 2 école 3 ak école yi am kayaar yëpp waaw waaw bi 58 la c'est ba am lu ci defar commune bi mi ngi ci jàpp am na lu mu ciy defar mais na dañoo bëgg ren ji daal ñu jël école 1 li nga xam ni mooy rénovation fexe kaa defaraat ba mu beesaat tax loolu mooy objectif bi nga xam moom la commune bi am mooy li nga bi naal te incha allah nañ fexe woo ku a woo ku ci a jàpp ba ñëpp jàpp ñu defaraat école 1 mu taxawaay tax war a taxaw ñoom jàpp nañ ci bu baax baax a baax a baax xam nga liggéey moom il faut nga am ay jumtukaay te ñoom jumtukaay yi jàpp nañ ci euh, seen seen kéemtalaay kattan ñu ci jàppee seen kéemtalaay kattan nag jàngalekat itam taxaw nañ ci ndax euh, même ci grève yi danga doon gis même bu ñeneen jàngale yi ci kat yi doon euh, grève fii maître CM2 yi daawuñu grève te non seulement daawuñu grève mais fête sax bu amee da nga doon gis ay maître parce que Mbawane laa nekkoon avant may ñëw fii Kayar 3 ren mais sama maître cm dafa jàngale genn wàll gi dafa jàngale genn wàll gi te kenn fayu ko ko te xam nañu en ville boo koy def en général ce sont les parents euh, ñooy cotiser di la di la fay fii maire yi dañ ko def te kenn leen fay dara kon loolu yaakaar naa ne il faut ñu remercier leen ci di leen ci encourager di ñaan maire aussi comme ni mu ko promettre ni ko président promettre euh, jàngalekat yi ñoom it ñu def une action boo xam ne dina tax jàngalekat yi am courage n'est-ce pas pour que sa waay seen action yooyu ñu def mën a euh, a am jeexital mën a feeñ ci ci yi. jafe-jafe ak démographie galopante bi. impacté ci xale jafe yi li ñu wax ni ñu ko waxee zone boo xam ni xëy na euh, natalité bi dafa am doole. xale yi ni ñu juddoo dafa xaw am doole macha allah ba tax na. waaw waaw waaw xam nga soxna yi moom yenn saa yi il faut que gaa yi jël ci mais bu ci gaa jëlee tamit dafa am loo xam ne dafa koy indi mooy ay ay gone fi nii daanaka dañoo ëpp doole euh, école yi école yi ñu jël ba fees école arabe yi jël ba fees te du soobee am moo des ay gone kon euh, loolu tax na toujours ñu ngi bëgg ay écoles yu bees waaye bala ngaa bëgg école yu école yi fi nekk da nga leen di taxawal ba yëpp mat parce que euh, am na école yoo xam ne fi mu ne nii seen cycle sax complet gul mais même wala bu seen cycle am it amuñu ay classes yoo xam ni euh, mate na. waaw table banc tamit gis nga bu élèves yi bëree table banc day jafe ndax bu fekkente ne élèves yi dañuy toog par juróom comme ni ko monsieur le maire waxee sànq effectivement loolu moo am ci école yi école boo xam ne 100 table banc nga am am 600 élèves boo defal ratio bi 600 divisé par 100 nga nga daal di am 6 euh, élèves par par par donc euh, mais maire quand même nee na comme ni mu ko waxee sànq. promettre nañu ni euh, taalement yi bu ñu leen indee yi yàqu yëpp di ñoom dañ taxaw pour defal leen. waaw moom moo dafa bu saax boo xam ni moom dafa am doole. ba tax na lépp loo fi def tamit weñ ah, na nga xam ne lu yàgg. waaw ndax géej gi ndax euh, toiture yi sax da koy bënn boo am na am na classe yoo xam ne boo demoon école 1 tey am na classe boo xam ne toiture bi dafa lekk complètement dara desatu fa. moo taxoon nit ñi fii bu ñu naan euh, tabax ñoom seen bopp sax ardoise lañ naan def mais entrepreneur yi ñuy jox chantier yi bu ñu ñëwee même bu leen maire waxee ni lii de baaxu fi ñoom dañuy def leen neex rek dem seen yoon te xam nga zone yëpp yemul aussi waaw loolu mooy suñu jafe-jafe waaw merci beaucoup